sëriñ Abdou Samad ne keroog ba ñëwee Ndakaaru di seet sëriñ Baara xam ne taalibe bi sëriñ Touba la. xam ne sëriñ Touba la. ki muy seete taalibe bi sëriñ Touba la. ki muy seete taalibe bi sëriñ Touba la. te li ma la ñaan dama ko def. Hmm. nee ta xam na ne bu ko ñaanee ngir sëriñ Touba lim ko ñaan dana ko def. sama doom ji laa waxanteel. nee na doomam ji di sëriñ Abdourahmane Mbacké la waxanteel. ne ko xoolal ma ñi ne foofu ba xam wan waxtu la mën a ñëw ngir gis ne ko xoolal ma ñi nekk foofu ba xam wan waxtu la ñu mën a ñëw ngir gis ko. mu amub diir ne ma laaj naa leen nee nañ suba ci une heure boo ñëwee da ko gis. ne mu amub diir mu daal di koy woowaat ne ko laaj naa leen waaye nee nañ suba ci une heure boo gis. xam naa ak yoon du ma ta tañax rek dem seeti kenn te tegu ma ko fu wér. nee na xam na àq yoon de du du du tëb rek di dem te tegu ko fu wér. moom mii moo ma jox rendez-vous ne ma nee nañ na nga ñëw une heure. nee na moom mii moo ko jox rendez-vous ne ko nee nañ na nga ñëw une heure. lañ ko te loolee lan ko wax. ba ma dikkee. nee na ba mu sama kafek bopp gi may naan. nee kafek boppam gi may naan. ñu seggee ko ndoxum Touba. nee ñu seggee ko ndoxum Touba. moom la indaale. nee na moom la indaale. def ko ci tarmuus. def ko ci ab tarmuus. yoon wépp sax ci laa ci laa doon naan. nee na yoon wépp nag ci la doon naan. boole ci tàndarma. boole ca tàndarma. ma àndal nee naa leen. nee àndal nee na leen. bu ko tegee bët. bu ko tegee bët. dana ci lekk dana ci dana ci lekk dana ci naan. Oh. bañ agsee. ne ban agsee. docteur ba ñëw. docteur ba ñëw. lam ma wax doo ko mën a gis. ma wax doo ko mën a gis. ma maslaa ca wax ko li ma ca xalaat lépp. mu maslaa moom wax ko lam ca xalaat lépp. mu ne may ma dem ca biir te ñëw. mu ne ko may ko may ma ma dem ca biir te ñëw. wax ak samay kilifa. wax ak kilifaam. ba mu delsee ne ay la yewen nanguwul. ba mu ne ko ay la yewen day tuubaa. mu may ma ko mu may ko ko. moom la doon jàng kaamil bi sante ko Serigne Touba. moom la doon jàng kaamil bi sant ko Serigne Touba ñoo muy tàcc xalma bi. bi nga egsee mu ubbi ko. ne bi ma egsee mu ubbi ko. fas ci sant Serigne Touba. fas lool sant Serigne Touba. ne rek la doon wax. laay ngi ko koy solal. des na de teewlu leen. jox na ko kaamilub alxuraan jox na ko manto jox ko kaamilub alxuraan